alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihali bi furudin wa sakartuhu liannu xat saxani liwatani bi mooy deuxième parti émission Saxum Touba l'officiel bi Serigne Moustapha Diakhaté Xaadimul Xaadim def ci vendredi 19 juillet 2019 ginnaaw bu loolu jàllee mooy li ma wax jaxase tur wi ak leneen euh, ñi nga xamante ni bi wax naa ko léegi mooy ñi nga xam ne mooy industrie yu mag yooyu ñoom fi ñu toll amatuñ jàmm ndax gis nañ ni euh, dafa am lu benn Jean Copin waxoon benn tubaab loon woon ci ñi fi nekkoon ci tubaab yi doon coloniser Sénégal ci jamonoy tubaab yi ni le mouridisme le la plateforme sur la laquelle se bâtira la forteresse de la conscience nationale baat boobu déglu leen ko baax tubaab bi ba mu koy wax booba ca jamonoy colon yi la muy xool murid yi ba ci yàgg mu ni ñii bis bu Sénégal di yeewu ñëw ci ñoom lay jaare bis bu ñuy gëm seen bopp ci ñoom lay jaare ñoom murid yi bis bu ñuy xam ñooy kan ci ñoom lay jaare bis bu ñuy doyloo seen bopp ci ñoom loolu le mouridisme constitue la plateforme sur laquelle se bâtira la forteresse de la conscience nationale loolu mooy conscience nationale xam lañ doon xam ñooy ñan xam fi ñu jóge xam fi ñu jëm nee na ci yoon murid lay jóge ab tubaab ko wax làkk naa ko léegi ngeen dégg man làkku ma yooyu tubaab tubaab bee ko làkk loolu nag li mooy lii conscience nationale ginnaaw bu diine ji jàllee maanaam dem ba nga xamante ni bi mën ngaa bay loo xam ne autosuffisance lay doon sëñ Saliou waree na ko xel kom conscience nationale moo waral loolu gerte gii ñu jëfandikoo di ko segal fii ci Touba ak feneen ak feneen conscience kenn jëndiwu ko bitim réew waaye bu ñu demee nag ba woon ginnaaw yi nga xam ne moom noonu yu indil ay jafe-jafe muy mèche yaag wee yaag ba ca góor ñeeg tuba yi ñu solak yooyu yëpp tubaab bi indi ko jal ko muy mbalit mën fi indi bis bu ñu ko wonee ginnaaw ci la ñuy am conscience nationale muy gëm sa bopp gëm sam réew bëgg sam réew doyloo sam réew loolu mooy conscience nationale maanaam doo doo def conscience conscience doo dem gëm la waa France am gëm la waa Amérique am bañ a gëm sa bopp loolu mooy conscience nationale tubaab bi nag noonu nag keroog muy sotti bis bu sotti dina xaw ma kañ la waaye ci murid lay jóge lii ci la bokk kon loolu dañ ci bàyyi xel bax lan li topp mooy lu jëm ci wàllu euh, résultat yi maanaam lii ma wax nii lépp lan mooy solution bi waxoon naa leen ni Sénégal gi ci danger war naa am solution kon man sama gis-gis lan mooy solution bi bi ci njëkk mooy mbooleem ñiy wax te yee nit ñi ak di leen wax ci diine nañ tàmbali bis nikki tey am na ku ma ko wax ki dem woo naa ko téléphone mbokk mu baax ma ni ko képp ku ci waxati nañ bis ni tey désormais nañ bàyyi discours défaitiste bi mooy xitaabu hazima bu ñu waxee nga ni ah dañoo bari doole de ñoom kenn mënul ci moom dara seen pexe yi américains yi français yi allemand yi nangam nangam ñu bëgg am ko nun kay mun ñu loolu de mu mënoo jëm ci xare yor ay ngànnaay départ sa kër di tàggoog sa njaboot ni leen de man de maa ngi dem waaye bu ma demee xam naa dañ may duma rek duma dong lañ ma fa dellu si jërul ngay dem maanaam discours défaitiste bi ñu yor waree ne noonu da psychologiquement dañ ñoo battre ba noppi dañ ñoo daaneel psychologiquement ndax amu ci kenn koy wax ba gëm ni li ñu war a gëm mooy li ñu war a gëmloo jeunesse bi mooy gëmloo li leen neen inna allaha maana in tansurkumullaha yansurkum yàlla noonu la àndal bu ngeen dimbalee yàlla bu ngeen bu ngeen toppee yàlla yàlla dimbali leen in tansurullaha yansurkum mooy bu ngeen toppee li yàlla digle yàlla dina leen jàppale dimbali leen falaa xaaliba lakum kenn du leen not kon nag lii ñu bëgg a ci Sénégal ak ci africain yi guddeeg bëccëg saa yoo waxee ni tubaab yi non ils sont forts nangam nangam sa gars yi da ngeen leen xamul ñëpp nag laal la wax Sénégal gépp ñi nga gën a yaakaar ñu baax lañ ku ci analyser ba noppi wax jë fa nga mujjee mooy mais tu sais nag avec les occidentaux avec les les nangam avec les bailleurs maanaam jàpp nañ ni ñun nous sommes o chaos mais loolu lañu war a génn loolu la ñu war a génn ci bopp xale yi génne ko ci bopp nit ñi leen leen tôt ou tard noonu nooy gagné waaye discours toujours rek noonu nu gagné nañu dañ noo man loolu yi kenn xamul ci ñoom dara ku leen tudd dañ lay rey nangam nangam dugg na fi dañoo bari doole dañoo bari xaalis dañoo bari pexe ña nga ci football ba loo kon kii ku dégg lii même boo dee waxtaan sa kër gëmaleel say doom ni leen falaa xaaliba lakum in tansurkumullaha falaa xaaliba lakum inna allaha maana gëm leen yi mën koo gëm ni mais bu ngeen leen di discours yaakaarloo leen victoire ki da nga koy yaakaarloo victoire yaakaarloo ko ndam mu amu fit moralement mais nous sommes battus moralement nous nous sommes battus dañ ñoo daan moral ma baaxatul parce que ñëpp jàpp nañ ni ba ilaa yawmi diin mënunoo dem ba réussir ci liñ bëgg parce que ñi nu tiim ëpp nu doole ci anam yëpp dañ ñoo man dañoo bari pexe nangam nangam dañoo bari doole dañoo bari xaalis kenn mënut a jiw nangam loolu moom dañ ko génne maa ngi ñaan képp kuy waxati bis ni ki tey désormais ci télévision yeeg fu mu mën a doon gëmloo leen askanu Sénégal jeunesse bi ni leen lu ngeen mënut a am amul bu leen ragal ku dul yàlla suñu borom tege leen loolu bokk na ci solution yi jëkk beneen bi ci des mooy bañ leen a bàyyi ko loo bañ leen a loo ndax am na loo xam boo ko dee wax xale yi rek dañuy découragé ci la ñuy màgg dañuy jàpp ne ñoom mën nañoo jàng ba noppi nekk ci bureau takk soxna waaye gëmu duñ gëm mukk ni mën nañoo yëkkati seen yóbbu Sénégal fa mu war a egg ndax dañoo am lu fi nekk loo xam moo leen di gàllankoor la France no da cee dafa teg loxoom Sénégal France du ñu bàyyi nangam nangam mais français yi kan mais nun bu fekkee bu fekkee ay nit lañ laa wax su ma tuuboo seen doole dama ni de yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn nit la woon bu ma kenn nag yàlla da mu yàlla déedéet dama ne loo fi gis Cheikh Ahmadou Bamba benn jëmm la bu ma bul ma dugal ci baatin beeg yooyu nag danga may wax en tant jëmm ji taxawoon rek di jànkonteeg ñi nga xamante ne bii loola yarama ko def jëmm ko def jëmm jëmm ko def léeg nag waxuma ci wax googu waaye yonent ba mu ñëw ñaata ñaata ñaata yéefar la fekk màkka nan la leen affronté moo tax ñi topp ci ñoom ñëpp ba ñoo ñëw dañoo roy ci moom ca fit wa ak gëm ga ak dëggu ga moo tax fa ñu egg ñu egg fa bu fekkee nag ñun dem nañ ba egg fii di mbooloo mu toll nii ba noppi guddeeg bëccëg ñu ne ñun moralement non ñii ñoo man nous sommes battus psychologiquement moralement loolu nañ ko bàyyi bis ni ki tey bokk na ci résultats yi nga xam ne solution yi nga xam ni man moom laay joxe. beneen bi topp mooy jot na nu yeesal suñ Fallu dina ma dimbali bu ñu demee ba ci biir li tax may indi ñeen fukk yi jëkk a jébbalu ci sëñ Touba di ngeen ko gis ci vidéo bi ñeen fukk yi jébb jëkk a jébbalu ci sëñ Touba am na góor gu dëkk Pekes Pekes ku fa dëkk. moo ko doon lim benn par benn li tax ma di ko indi dama leen di ngeen dégg tur yee dégg ñooñu xam leen li tax ma lii may wax la dafa tolloog loolu mooy lan mooy euh, maanaam yeesal lan war a def mag ñoo ñee jëkk a jéblu nañ defoon sëñ Tuubaa bi mu ñëwee fekkoon fi li mu fekk loola kon yeesalaat jot na yeesal li sëñ bi indi woon wala boog nekk ci tànk yi la sëñ ba nekkoon ak ñamu àndaloon loola moo jot fi mu toll c'est le moment waxtu wii mooy waxtoom nag solution bi ñu wax yépp du xeex nañ ci loolu yëpp mën nañ ko def mais li gën a gaaw ci mbir yi mooy dellu ca yoon wa sëñ bi nekkoon ci ci nam daan jàngale ci sëriñ si dem ubbi jii daara ci sëriñ si dem bay bu sëriñ si rek mais ubbi jii daara dem bay ba noppi tarbiya amul beneen ñaata ñaata xale yi defaroo xel koom ñaata xale ñoo continuer di defaroo xel koom fi ñu ak daara yeneen yoo xam ne mënu ma leen di tudd am na ku ma ci wax sax ci biir ñi may laaj ci ñi seetaan mbir mi ni ma dafa bëgg ko doomam ban daaray tarbiya laa ko mën a yóbbu loolu ci jeexital gi dinaa la jox incha allah dinaa dinaa la wax dinaa la wax ni nooy def waaye li ma bëgg wax rek tamit bi gën a gaaw bi nu gën a mën a dimbali mooy dellu ca la mag ña nekkoon doxin dañ doon dox ci yar tarbiya yóbbu ca daara ya jàngi alxuraan jàng tarbiya mooy jàngale yar ak àdduna ak nooy nekke jàngal la alxuraan jàngal la diine loolu mooy tarbiya loolu nag laa ni mooy solution bi nga xam moo gën a gaaw ci lépp kon képp koo xam ne sëtub Sëñ Tuubaa nga wala képp koo xam ne doomi Cheikh nga wala képp koo xam ne am nga responsabilité loola normalement fi nga toll nii loola mooy sa warugar ak ku mën a doon nag amul beneen boo mën a wax bi ndaxte bu fekkente ne bi su ubbi daara samp ko dem di tarbiyee xale yi li ñuy wax muritu la ngeen daan dégg ñu takki der muritu ji waaw loolu kon nañ ci bàyyi xel ñaari solution yooyu laa joxeegun tey loolu daal moom la ñu war a jàngal xale yi loolu itam duma ci dañ mukk te dinaa indi yeneen incha allah kon nag jamono jii damay taxaw tuuti ñu def taxaw seetlu bu nu ñëwee nga xam mooy mujj ci waxtaan wi su ko defee incha allahu rabbi ñu mën a tëj waxtaan wi kon nu bàyyi leen eh, ba indi li nga xamante ni bi video yi wax naa leen ko ñaar laa fi annoncé gun benn bi mooy bi nga xamante ni bi mooy ñeent fukki ñu jëkk a jéblu Sëñ Tuubaa dina ñëw balaa taxaw seetlu bee ñëw am na beneen buy ñëw boo xam ne Serigne saa mbay dama ko ciy indi ci lu mu doon wax tuuti ci Touba ak li nga xam ni mooy Cheikh Abdoul Ahad li mu doon fàttali ci ab taalibe ak suñu digg sëñ Tuubaa ñun ñëpp ay taalibeem lan beneen bi ci des mooy euh, kenn koo xam ne dafa def aw taalif ci lii sëriñ bi tere am na ci rek yooyu yëpp di ngeen ko gis waaye ginnaaw espace bi diggante bi yooyu dinañ fi dugal yooyu su ko defee bu noppee nag ñu indi taxaw seetlu gi jërë ngeen jëf. waa Touba dañoo war a am am nekk waaye ndax suñu borom daf leen dimbali ci dimbali goo xam ne maanaam climat bi ñu nekkee dafay climat bu yomb a baaxee. boo xam ne foo wëlbati ko gis ku baax foo wëlbati ko gis xabru boo xam ne dana la dolli boo ko siyaaree foo wëlbati ko gis lu sëñ Tuubaa bind wala euh, bokkam wala ku takk ci moom walla daraam loola ko mën fàttali buñ góorgóorloo boole ci tuuti ku fi ñëw ñi nga xam ne ñii liggéey lañ fee wàcc loo xam ne jeexinal yoo xam ne ku ñëw xam ne bëgg yàlla bëgg yonante bi farlu ci lislaam topp ci li sëñ Tuubaa wax loolu la waa Tuubaa war a def waaye bu fekkente ne dañoo xaw a sàggan comme li fi sëñ Abdoulaye doon dindi <laughs> yooyu bu fi baree day mujj su mooy buñ bàyyi woon bu bàyyi woon noonu rek day mujj ku ñëw ci Touba da nga fi gis kat yu baax waaye nit ñi ñoom euh, doo leen teg fan da ngaa ñii kenn defaru leen ah, ah. waaw te defar nag moom mën na la sëñ Touba bi mënoon a defar sax mën a defar gi mën a defar ci baat nit teewul mu daan defar ci zahir daf daan waare ba kenn ci nekk defee ne liggéeyu sëñ Touba bi séqoo ko kenn te doonoo ku taxaw ci wetam di wax amin sax amu ko yàlla rek la yaakaar loolan di wax ak yàlla di ko diis boppam di jaarale yonent bi seen diggante ba yàlla defal ko li mu ko defal li mu ko defal nag bu mu nu nax yaatu di mu yaatu ba kenn ci nun ku ne mbir mi wisaaroo ci sawet ba nga defee ni sequ ko kenn te doonoo ci dara loolu nanu ko xam sëñ Touba ñun ñëpp ay taalibeem lañu sëñ Touba amul rak sëñ Touba amul doom sëñ Touba amul kenn ku dul ab taalibe donc fii mu laa leen di wax doomam ju ne ñëw nga toog fi moom jaay ko njureel gi mu ñu jur jëndee ko ak taalibe mu ngi leen digal li ñuy digal taalibe yi di la sant li ñuy sant taalibe yi nga di ko def ni ko taalibe yi defee rakkam ju ne noonu nga defanteeg moom kon nag sëñ Touba amul kenn ku dul taalibe gannaaw nag ñun ñëpp ay taalibe yi sëñ Touba dong la noonu yaakaaruñu mujj moom te barke ba tey suñu lépp yi nga xam ne lii wartoon nañ ko ragal war koy wut war ci sonn lépp jomam may nu ko li ñuy ragal jëm doomam fegal nu ko kon war na noo xam ne mujj ci moom rek kon war. bokkul ak wàllu yuy des parce que Cheikh Ahmadou Bamba affaire am day gën a feeñ ñeneen ñi seen karaama day ànd ak ñoom ku dama leen di wax koo xam ne maa naka yàlla tawfiq mu taxaw fii ndax sunt yàlla bu baax. ku taq ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba na sunt yàlla bu baax te loolu du ngeen ko xam bala alaxira ba alaxira daa ngeen xam lan mooy Cheikh Ahmadou Bamba ñu naar yi xam nañ ko bu baax ñoo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba amul morom lu ko yàlla maay maayu ko kan ci jamanam wa jur yi wax leen xale yaa ngi saaraan dëkkub sëriñ bii bëgg a na ngor faan ku war a wax waxal ca teel saw sas soo waxule su ëllëgee saw lay la bu laab la waaju ñëw te laabul soo farluwul ku fi suwaare tey dangal di noos yi léegi ñu xëy ko wàqi suul ci suuf si sipp bu gàtt ak soli baa kiris koros na teel a waaj léegi ñu xëy ko wàqi gas saytaane bég na kuy mbalax ci tuubaa léegi ñu xëy si sikar bi sub dëjëm ba di tox di man di jaar ci suuf si yaale kum man di doon léegi ñu xëy ko jaale ku daa fi rey di wër di sàcc njaalo léegi mu dem mbokkam yi xëy di baalu guddali wee xefam yanaa pooseel ma ndaw si la yow joxoo bi wor ma jumbuxu aaw ooki ba déeg dee baa déer yii yépp loo ci sol xamoo fa ngay teer def bopp neen séru yaraaxta tuuti loo taaru taaru yaa ngi dox ci joote jigéen ñi bàyyi leen paccal di buujal mën naa waral feebar bu mag bu lay dal am na luy wër di naaw lu mel ne ab air kum tab bi say ween faw yow nga cancer ku yor sa doom mu sol yéreem yu baaxul nga naa ko bul guddee te naa ko waaxul yéen ñaara yem képp mbaate mu gën la su ëllëgee fu mu fi taxaw jiital la ñëlee nga xëy ca daara jaak kaamil ba gaaya ca des ca terrain ba ak football ñëlee nga xëy di ngénte ak di ciital gaayee ca des di sóoli ak di sarxal ñëlee nga hôpital di ordonnance ñëlee ca sport ba di way di taasu gis naa ko jël xolam ba def ko ñeenti xaaj nii la ko séddalee di cër yi may limaat benn mu jox làmb ja ak bokkam ya joxaat beneen mi ba ak soppeem ya jël bu ñetteel ba jox équipe football baa mu door a jël ba mujj jox Seex Bamba wor na sëriñ bi wor na it jëmmam ja yowmal xiyam fawu mu xeeb jëfam ja maam soxna jaara mooy sangub ku taaru war nañu roy ko mooy tuluy yéreem yu baax yu sell moom la daa sol boole ca muur boppam ba teg ca a kol jigéen ju baax ju tudd soxna jaara wala nga sopp mbaa ngay roy ci jaara moytul ma xeesal bi ta moytu mees mii ta moytu sol yu gàtt yu dox ci peex mii jigéen ju léttu mees te yor janaa ba te ndox ma mun la tooy ba dem ca kaan ba julleem nga baaxul ndax ca ngaay la baaxul lum jàpp-jàpp moom yaram walaabul dëkkub sëriñ bi ku fi sol yu gàtt mbaate mu sol si pam bu dang ne boole ca xeesal mel ni ab nasraan yi boo ko waxee mu naan la yaa ko waane di romb seex bàmba ak njabootam kenn du la nawloo yaa ki mbaam yéen a yem ku di murid di dox ci Tuuba war nga di moytu lépp luy safaan ba wana jini rabbi wa ahla daari te waa këram romb na mbakke baari soo ca bëggee bokk dalal di tuub yow ta moytu luy safaan ba nanga ko daw yow te bàyyi luñ sib bàyyi luñ xaraamal bàyyi lu seex bàmba ba ñun yow gaawal ta lu naa man jii di lay fii laa yem yal na nu seex bàmba di lim ciy soo ëllëgee ñu dar ko jëm firdaw si ñun ko soppoon mu di góor mbaa si illeer bi ñëw na wante mbay mi des na toolub sëriñ bii jóg setal ko jot na ku mun la soññee mën la bay kon war ngaa man di joxem ndox mbaati suukar war ngaa ku way wi neex làmba sa poos neexal ma kum neexul it tëyal sa yëf jéggal ma tudd ma kenn way wi ordonnance la ku feebaroon jëlal tanaan mu faj la yàlla na nu Seex Bamba gërëm te may defar nu far yeggal nu amina amina ne leen amina mbokk yi ginnaaw kon bu noppee ci li xam ne moo doon pàcc bu njëkk bi ci Saxum Touba euh, nu dikk nag ci li nga xam ni moo ci topp mooy leen taxaw seetlu te taxaw seetlu waxoon naa leen day dugg ci cadre euh, nit ku bokk ci mbir am ci wàll war cee wax te di ci wax te di ko teg fi ñu ko war a teg bu dee lu ñu ànd loola du jar du jar wax la Sëriñ Cheikh Mbacke waxoon bu dee lu ñu àndul nag. loola moom mooy jar a wax ngir ñu def lu tax bu ëllëgee ñu di ci ànd ñëpp di ci ànd kon li mu wax foofu mooy taxaw seetlu gi tey mi ngi jëm ci mbir mu doy waar mu xew Sénégal bokk na ci li tax ma leen Sénégal mi ngi ci danger ndax bu leen fàtte mukk ni boo demee ci alxuraan am na saar wu ñuy wax lóot soratu lóot aw saaru lëm ab yonent noonu la tudd lóot yonent yàlla lóot aw saar la ci biir alxuraan li ko waral lépp lépp lépp lépp mooy mbirum góor jigéen mooy mbirum góor jigéen réew mu nekk na góor jigéen di tudd noonu nga koy tudd homosexuel ñooñu ci tubaab yi noonu lañ ko tuddee góor jigéen moom la ko sénégalais yi wax ci wolof yi am na yeneen réew yoo xam ni nañ ko tuddee noonu lañ koy waxee dafa am loo xam ni. lu ñàkkee teggin nen ni egge ni bone ni nga bëgg a taxaw ni dama koy tegginal te boo waxee te tur wi nii da nga koy tegginal ni borom ñaari tur yi ba noppi di nga ñëw ci mbir mi te mbir mi moo gën a bon borom ñaari tur yi kon loolu da kon jëru nga ci wax kon góor jigéen laa wax yi euh, boo gisee moo wax la nag mooy taxaw seetlu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laay indi benn rek ci waxam man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum nun ñëpp maa ngi yéen ñi seetaan ñëpp yonent bi lañu yaakaar mooy suñu wasila ndax mooy wasila suñu wasila ci ginnaaw Cheikhul Khadim mu topp ci ginnaaw yonent bi mu wax ni képp ku nuru nuru lu ay nit nga jëm leen a nuru nuru ci seenu col wala ci seeni waxin wala ci seen defin jéem leen a nuru nuru pour bëgg leen a nuru ñëw ci ñooñu lañ lay considérer ca nga bokk ku jéem a jël seen comportement rek léegi ci ñooñu lañ lay considéré te man tashabbaha bi xaw qawmin fa huwa minhum am nag lu fi xew loo xam ni kenn du ko nëbb kenn du ko làq waaye rawatin nag fi nga xam ne laal na ci yoon murit na boole ci lislaam bi moo jiitu lépp ndax moo tawloo yoonu murit waaye Waly Seck dafa wax ba ni man murit saadix laa Baay Faal laa ba noppi def ñetti yëf yoo xam ni murit saadix du ko def Baay Faal du ko def murid saar bu dëgg ko def Baay Faal bu dëgg du ko def bu njëkk bi yéen a ngi fàttaliku lu musta am ci histoire Sénégal murid yi jóg di manifester ci Touba ak Dakar manifester benn yoon boobu lu ma sa amee lu ko waraloon dañoo caricaturé woon sëriñ bi caricaturé maanaam jël nit di ko xeetu dessin wu ñaaw a ñaaw Cheikhul Khadim ku tedd gi lañ caricaturé woon Jeune Afrique moo ko defoon ab journaliste nekk Jeune Afrique moo ko defoon est-ce que dafa xëy xëyul xëy def ko waali Seck moo yoroon ab saagub jigéen gàddu ko nit ñi dal ci kawam lu nañu di ko wax journaliste ba nee da koy faralee da koy jàppalee da koy dimbalee tax mu caricaturé ku tedd ki caricaturé ko loolu duma ci del si waat waxoon naa ci mun na xari ñëpp te ba mu ko caricaturé moom ci suba sa am na concert grand théâtre wala ci gannaaw suba sa taxul mu annulé ko te boobu ñëpp dëkk bi cax na ñëpp am nañ tuuti rek musiba am mu xam ni moom waaje moom lay faral ba caricature la mu wax nag ca caricature ba ak la duma ci egg moom xalaatuma ko loolu jàll na waaye sëriñ bi daal bu ñu ko caricaturé moom saak ba mu gàddu woon moo tax keroog la waroon a suur lépp ci àdduna moom dem tarbiyewu ji loola jàll ñu dem ba ci yàgg mu sol fi yére yu yaraax te yére yu yaraax waxuma la góor waaye jigéen rek amul sol amul droit sol yére yaraax ñu coow ci wax lu nekk ba bërki dem fan yii ngeen dégg li xew muy ñetti yëf mu dem sol yére yoo xam ni drapeau bi kenn ñimewu ko sol ci mbedd mi dox kenn ñimewu ko sol ci mbedd mi dox waaw wala gone yi mën nañoo jëflante yow boo solee mën nañ laa duma tey amul amul ñàkkul xam-xam ñàkk xam-xam ku toll ni ku ne xam na fa muy choisir ay abimaam moom xam na ni dina dem ci boutique sàngam fa lay jëndee abimaam wala am ku koy jëndal nan lay mën a sole loolu loolu kenn du ko sol par hasard moo tax bala maa sori fàtte daa gaaw imaam Kanté sëñ Momar Diagne yéen ñëpp na ngeen xam ne jërul coow bokkul ak ni mu defoon ci yi jàll de ñëpp a ngi ci seen ginnaaw imaam Kanté na nga xam ne ñëpp ku dib jullit laa wax ku di jullit mi ngi sa ginnaaw te mbir mi du dem am na loo xam ni duñ fa egg mukk bu ma leen dëkk bi dans danger egg nañ ci noo ngi ci guddi leen dem rek xam leen li ma leen wax. Seydina Luut mi ma doon wax yàlla histoire bu ne nit def na ko fii ci kaw àdduna mu bàyyi di la xaar rek waaw nee na yumhil wala yumhil man yàlla damay yeexe rek waaye duma neenal mu tôt ou tard un jour viendra damay yeexal nag damay bàyyi noonu rek waaye duma ko ne du ko neen du ma annulé. Seydina Luut nag bi bi ba ba ñoom nekkee nekk def yëfi góor jigéen moom yàlla daa wàcce da leen a alak moom jaxase suuf saak lépp ci seen kaw loolu rek fa saasale leen alak loolu nag kon bu fekkee ne kii mi ngi sol lii ba noppi am ñu ni dañuy jë da day am ay wëlëri ci ñooñu wala muy dem Angleterre ak ñëw dama ni ba dëkk bi am ñoo xamante ni ñu yéeg seen i kàddu lii daal bu boobaa du dal du ko dal moom rek du dal ay ay njabootam moom rek Sénégal gépp lay concerné ndax yàlla lu tax alagul waa naa Luut ña ko doon def lu tax ña ko cay def rek alul leen réew mi yëpp la jaxase moom yàlla réew mi mépp la solo alag leen lu tax ña ca bokkul de mu boole leen ci kon dafa am loo xam ni fitna la joo xam ne du yem ci bopp borom nun ñëpp moo tax nag wax ci bu dul lool sax dañ ciy wax waxantuma la ak loolu nag te lii ma leen wax Jeune Afrique bii nii la demee woon waaye loolu it demee am na lu ma ca sànniwoon kàddu naa leen lu wokk yonent bi xori Serigne Touba ginnaaw les frères Kouachi ñoom ñoo associé woon journaliste yooyu ngir li ñu defoon ci yonent bi salaa salaam bu ñaaw mu ne lu wokk yonent bi xori liggéeykatam bii moo tax waaj a jóg moom itam caricature Serigne bi waaye ba mu ko defee ba noppi dafa am sabab sabab sa mooy Waly sekk moo soloon ab saak gàddub saak ñu dal ci koom waaj di ko farale moom lu ci yoonu koon ku tedd ki ba mu di ko caricature ak yi wax yëm ca wax kon loolu bu dee murit saadex laa Baay Faal la keroog la waroon a suur luy nuroog lu mel noonu keroog la waroon a suur te foofu li ma fi sori mooy Baay Faal boo ko doonee wala murit di nga am ku ab sëriñ il faut nga am ko jébbalu sa wasila ana wasilam kan mooy wasilaam ci Sénégal bu fekkee am na wasila yow wasilaam maa ngi lay laaj lu tee boobu ba léegi woo waa sek wax ak moom man xaw ma wasilaam ku ne naan kii ki waaye bu fekkee am nga wasila koo xam ne mooy sa sëriñ sa sëriñ boobu li sëriñ waaye digle ci ab sëriñu ko taalibe bi lu tax boobu ba léegi woo ko taaj ko woo journaliste yëpp ni leen man kat woo naa ko bu lankee nag ñu xam ne yow sa jaan wàcc na lu tax defoo ko yow wasilaam yow xaw ma kuy wasilaam waaye lu tax defoo loolu man sama taalibe bi bu ko defoon tey du du faraan ku may jëwriñam diggam ak sëriñ bi bu ko defoon tey du am moom waaye dama la woon rek loolu képp koo xam ne yaa ngi topp sëñ Tuubaa tey tuddoo loolu boo amee ko topp ci yow di def loolu yow yaa war a jëkk a jóg buy wajuró jugul wax ko yow yaa ko war a jóg faj ko loolu mooy li wér amul duma dem te dikk beneen bi topp mooy waxuma la ci jëf de waaye ji ñett yi ma la limal rek ñett yi ma la limal dem na ba ci biir dégg naa ko mu wax ci kàllaa moom ni groupe bu ma nekk man nu may nekkee loolu ndax groupe bi nu nekk noonu di musique nee nañ noo fi dàqa nangam noo fi dàqa dem noo fi dàqa lijjanti xale jigéen yi noo fi dàqa doxaan rek noonu la ko waxee waaw loolu loolu loolu loolu nit dina ko tiitaroo ak groupe ba yéen rek yéen yéen yéen yéen yéen yéen assumé ngeen loolu yéen groupe bi baat yooyu li maanaam loolu des lu ñuy tiitaroo la te loolu ñëpp gis nañ dégg nañ ko beneen bi topp nag ma ñëw ci taxaw seetlu gi Oxfam dépassé naa Oxfam man wax naa ci tey lu may wax rek dem leen ci YouTube bi ngeen xool Sakku Touba jëkkee wala waxtaan yu ñu jàllale yëpp point E weeru koor juróom-benni at juróom-ñaari at yu tegaloo am na guddi gu ma fa daan teew point E ca wetu canal def waxtaan di waxtaan ak bokki taalibe ñëpp teew ci guddi gi ba ma dalee wax nit ñi di leen avertir ci accoutrement yii accoutrement góor jigéen yi boobaak léegi vingt ans quinze ans la di avertir nit ñi di leen def attirer seen ci accoutrement yoo xam bu ngeen ko jàpp leen ni borom ñaari tur la am na yëre yoo xam lii ñi nekkoon point di ko seetaan ku ci am ba léegi yaa ngi ko garde mën nga ko dugal ci YouTube ñu gis ko ba ma ko tàmbalee alerté man muy col yi ñuy sol xeetu col yi ndax dañoo am seen xeetu col ak seen seeni i daal kon Oxfam moomu muy ONG bi moom loolu lañ ko dénk wàll googu dana ci dox waaye jàpp leen ni ONG yi ngeen fi gis yëpp kenn ku ci nekk maanaam yalwaankat bu mag nga ay tubaab yu mën a yalwaan lañ ak i africain yu mën a yalwaan créer ONG dem di yalwaani tubaab yi nga xam ne seen xaalis xamatuñ nu ñu koy def su ko defee nag ñu jox leen ko danañ ca def forage danañ ca def leneen danañ ca def leneen waaye ñoom ñooñu nga xam ne ñoo yore ONG yi ñoom ci seen bopp liggéey bañ fay liggéey ñu di leen fay loola moo leen gën a yitteelati ay yalwaankat la ñuy yalwaan yalwaan yi ba ñëw jël jël yalwaan ci yalwaan ji di ci saraxewaat loolu mooy ONG dañoo yalwaani ci ñi nga xam ne xamatuñ ñu ñu def seen alal fu ñu dem fa ni la Afrique dee nañu ba noppi yàqu nañu amatuñu fu ñu jëm bu ñu leen saraxee milliards ñu jël nag ay bureau ubbi ko yore otoog lu nekk di fayee ko ci yalwaan ji ba noppi di saraxewaat ci yalwaan ji waaye nag li ko tax a jóg dëgg dëgg dëgg dëgg ña leen di financé itam ñooñu dañuy am luñ bëgg ñu leen koy defal ci biir réew yi ba ci corps de la paix bu même bu bokkul ak ONG jàppale ni corps de la paix yi nga di dégg yëpp dañu leen yebal ci biir Afrique pour ñuy jàng suñu mental pour xam bu ëllëgee nu ñuy mën a yilife toujours loolu mooy origine corps de la paix loolu ko tax a jóg dimbali da ngay yooyu yëpp nekk ci àll beeg kaw gi déedéet dañuy jàng si nit ñi xool nit ku ñuul sénégalais bi mooy kan ba bu ëllëgee ñu mën laa maîtriser ci xalaata xel jëlale na ak ONG yi nga xam nag ñii ci wàllu góor jigéen la mais ñii ci wàllu jigéen ñi lañuy ñuy jaar loo fi gis rek ONG yi di ko def am na objectif waaw wàññi njur meeg nangam nanga nangam yàq xale yeeg jaar ci école yeeg aide yi ngay dégg yëpp objectif bu doon junni bu doon téeméeri ONG jàppale ne na ñetti ONG ñoo cey def ngir yàlla 97 yi yëpp objectif lañu am boo xam ne seen bopp la ñuy liggéeyal man maa leen wax lool te kenn mënu ko dindi kenn mënu ko dindi ndax am na nu nu mu nu mu gënoon a gaawee lool même bu fekkee ne ut dama ne ONG yi am na objectif du benn Oxfam rek yeneen ONG yëpp am na ci yoo xam boo leen toppee ba ca biir dafa am lu leen tax a jóg kon loolu dañ ci bàyyi xel bu baax a baax lenn li ci mooy. dégg naa muy wax ni bu ñu waxee ñu ne diw dafa am mbooloo maanaam musicien bi dañ ko topp xale yee ko bëgg dafa am mbooloo bu demoon fee dañ fa dem mbooloo yàllaa ko may lool du mayu yàlla mbooloom saytaane la du mayu yàlla mbooloom saytaane bukkul ak mayu yàlla mbooloom mayu yàlla bu la mbooloo ma toppee doo ca gis kenn koo xam ni ñëpp la ca ëpp dañuy jublu ci yàlla suñu borom mais mbooloo moo xamante ne bi guddeeg bëccëg ci lu neexul yàlla ndaxte ñu ngi jaxasoo jaxasoo koo xam ne neexul suñu borom nit nekk am na loo xam bu demee ba xam ko da koy bàyyi li ma bugg a wax mooy loolu dugg may liggéeyub saytaane la waaye am nañu ko yàlla ko may noonu kenn mais sëñ bi nan jàng diini te xam ko yàlla dina jël nit may ko mbooloo ay junni junni ñu topp ko ngir léegi maanaam lan ñu nekk ci lu neexul yàlla guddeeg bëccëg mas ngi loolu yenu na maanaam xanaa boo jàngul woon diini sax xam ne loolu yenu maanaam ñi ko am ñëpp ñu topp leen ñi leen topp mbooloo mi mbooloom saytaane la saytaane mooy xëcc mbooloo mi ngir ñu dem ci ñoom lu la wax nag kenn mënu koo dindi waaw nañ ko bàyyi xel baax a baax a baax damaa bëgg leneen li nga xam mooy topp mooy il faut être parent d'élèves yi parent maanaam parent yi waajur yi muy góor jigéen na ngeen bàyyi seen xel bu baax a baax ni il faut ngeen nekk ñu averti ñu foogu bu ngeen moytuwul nag mbir mi diine lay doon adduna lay doon ak àllaaxira foofu laa mën nañ ci loolu kenn ku ne guddi ak bëccëg. suba ak ngoon boo gisee yàlla suñu borom waxuñu bis bi addunay tukki man li ma ci jàngate li tax waxul bis bi kenn xamul kañ la adduna tukki yërmande yàlla xam nga nit ñi yàlla yàlla kenn kenn xamul bis bi kañ la addunay tukki xam nga tax yàlla daf ko nëbb ko man nga see jàngate ni yërmande yàlla la yàlla daa bëgg man ak yéen ñun ñëpp chaque instant que jëfee heure bi minute bi jour bi guddi gi weer wi yëpp ngay foogu ni man suba lay tukki pour mu bañ laa bett ndax saa yu nekk ngay góorgóorlu denc lu neex yàlla loolu tax yàlla nëbb nëbb waxtu wi da ko nëbb bu buñ ko xamoon xëy na mën ngaa préparer déedéet yàlla dafa bëgg nga bañ a dugg ci lenn ba yaakaar ni suba àdduna mën naa tukki wala tey ci guddi su ko defee guddi bëccëg sa xel dina ci loolu ngay gën di dellu ci yàlla tey dellu ci yàlla am na yoon maanaam boo ci delloo un an rek am na noo xam boo ko defee kenn bul mu la ci tane boo dëggalee loolu du caaginu dañ cee da ngay dem ba yow ñam lu dàq la nga nekkoon lépp guddi bëccëg kon góorgóorlu leen ci loolu baax a baax dañ bàyyi ci xel euh, li ma bëgg wax daal mooy benn bi ci mujj ci taxaw seetlu mooy am na lu ñuy wax résolution Nations Unies xam nga nit ñuy wax nañ ci Wally Seck guddeeg bëccëg ñëpp wax ci mais imam yi imaam Kanté ñiy wax ñëpp kenn ku ne am na lu gën a garaaw li Wally sekk def boobu garaaw na lool lool dañ ci war a taxaw moom wut a dem ndax am na koo xam ne mi ngi ci réseaux sociaux yi mi ngi publicité nee na Wally Seck dimanche ji ñu jëm góor jigéen yi dañoo bëgg a daje ci almadi xaw ma fan def benn soirée ba moom mi ngi woote nee kuy jullit ne ko fekk bakkanam la ci teg dimanche ji nu jëm waaye li ma bëgg a wax foofu mooy président de la république mi fi nekk bu yàggul bërki démb mi ngi nii ñun ñëpp nu gis ko booboo gën a boobu ëppati garaaw ndax lan ci sunu tur lañ ko def ci sunu tur lañ ko signé mooy lan mooy le Sénégal vote ni oui ni non à l'homosexualité waaye léegi li fi nekk ci jullit yëpp bëgguñu góor jigéen diine yi nga xam mooy diine jàngu bi bëgguñu góor jigéen amul benn diine bu ko jàng waaw kon président bu demee ba nations nations unies di tëral benn charte ci mbirum góor jigéen lu ko tee noo non Nigéria nee nañ réew yu arab yëpp nee nañ non nun bu fekkoon sax cinquante dañoo bëgg cinquante bëgguñu waaye wér na leen ni quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp kenn bëggul lu tee président de la république bi mu demee di signé loolu résolution boobu lu tax signé wul non néewul déet néewul waaw loolu fan la ko teg am na élément boo xam ne danaa ko génne ci taxaw seetlu président bi ngeen gis ko fi ko benn télévision invité di wax ak moom ni ko mbirum góor jigéen mu ne ko en tout cas duñu am problème seen digg gouvernement bi xaw ma nag ñoo keneen waaye diggante gouvernement bi duñu am problème loolu kon nañ xam ne kon ginnaaw wax ne duñ ko am ak gouvernement bi képp ku fiy def lu mel na nga xam ne moom di nga ko lijjanti ak diggante ak nit ñi loolu na la leer moom waaye lii di ngeen ko gis ci image muy fu muy waxee ci télévision bi nii góor jigéen ñi Sénégal duñ am problème seen digg gouvernement bi ba noppi mu signal ñu loo xam ne man ci sama tur yéen ñëpp ci suñu tur la ko signé képp koo xam nag yaa ngi déngat ba nga bëgg cee ko wax dara ci mbir mi bu ëllëgee ba duddee sa bàmmeel na nga ma seetee Saxum Touba man yàlla maa ni woon ci li président def mooy yoon képp ku dugg sa bàmmeel bañ denc la muy man ku mu doon bu fekkee ni lii naqari woo boo duggee sa bàmmeel na nga wax yàlla ni ko bu malaaka yi di laaj nee leen keroog day Saxum Touba seetaanoon naa ko déggoon naa si xaadimul xaadim di wax ni man nag nee naa ko woon lii présidentiel ci laa ànd loolu na ko ñëpp bàyyi xel ku ku mën rek na nga def ko jar rek defal mais nous avons des homosexuels chez nous. ça veut dire qu'aujourd'hui des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue la possibilité de s'exprimer la possibilité de faire campagne par exemple. ils sont libres. sans aucune difficulté. Ah, sans ça, je ou pas pas avec le gouvernement c'est mm. sûr mais est-ce que. beneen bi topp une proposition de loi. contre l'homosexualité toujours dans les tiroirs de l'Assemblée député yi lan lañ fi def ku ñuy wax Mbéri la dëkk Louga ab député la nee na indi na benn proposition assemblée pour ñu wote contre góor jigéen te ba léegi projet ba mu yóbbu woon ma nga assemblée di nelaw ca tiroir député yi lu tax yéen wotewu leen ko kon yéen bu bu ñuy falati député yéen Sénégal na ngeen bàyyi xel bu baax a baax bu ñuy falati député na ngeen xool bu baax a baax dama ne xool leen kii ab député moo ko yóbbu bëgg ñu wote pour contre ngóor jigéen Sénégal député yi ba léegi loi ba président assemblée nationale nelawal na ko ma nga ci biir trois waxul sax jëm ci président assemblée national ba keneen waxul jëm ci te moom indi na ko bëgg ñu wote ko lu tax wote wuñ ko fi may jeexale ci wàll googu mooy ñi ngi jëm ci jeu de la jeunesse jeux olympique de la jeunesse yaakaar naa 2022 lay doon su ma jumul na ngeen bàyyi xel xew-xew boobu Sénégal gagné ñu naan Sénégal gagné na ko na ngeen xool lu tax Sénégal gagné ko bu ngeen bootuwul mbirum góor jigéen ak yu bare bare bare bare xew-xew boobu di ngeen ko ci dégg ci Sénégal man maa leen ko wax ndax li fi nar a teew ci ay doomu aadama nar a fekk xew-xew boobu xew-xew tàggat yaram la 2022 lay am Jeux olympiques de la jeunesse li tax ñu tànn Sénégal jox ko ko te ñu bari doon ko xëccoo na ngeen nag bind bàyyi li ma leen wax eggaguñ ci waaye yéen ñëpp na ngeen foogu rek balaa boobu incha allahu rabbi kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ indi woon taxaw seetlu élément bi wax naa ko léegi di ngeen ko gis fi mu doon fi ko journaliste bi doon laajee ak résolution bi nga xam ne signé nañ ko mu ngi nii loolu ñëpp teg nañ seen bët lenn li xam ne moom laay jeexale ci waxtaan wi mooy Saxum Touba mi am na ñoo xam ne dama leen di wax leen téléphone bi ki ma ko doon laaj ndax ni ñu def ba am ko dama lay wax rek nii la yow boo ñëwee Touba wala nga am kenn ku ñëw Touba rek boo ñëwee rek incha allah rabbi ci wetu jumaa ji rek ñuy wecce ko foofu xasaayit euh, incha allah rabbi Serigne Mbacke Lo boo ko laajee. boo boo ko joxee sa téléphone dañ la woo yow boo ñëwee ba Touba euh, ki sës ci jumaa ji sëñ Mbàkke Lo di wecceeku xasaayit soo fa bàyyee sa téléphone ak sa ni ko joxal ma ko xaadimul xaadim rek danaa ci jot man dinaa la woo incha allah kon ku ko bëgg rek noonu mën ko woowee loolu bu soob yàlla euh, ginnaaw loolu itam li may dikkaat ci sàq mi mooy am na ko doon wax ni euh, sàq mi dellu siwaat na sàqum Touba l'officiel mooy TV boppam nekkatul ci télévision làmp xëy na dañ koy soog a gis ndax ñu bari gis naa ni bii weesu ñu ngi koy soog a xam waaye sàq mi léegi ci YouTube lay nekk ci Saxum tubaal l'officiel boo ko defee mooy télévision Saxum Touba l'officiel Saxum Touba l'officiel ci YouTube rek saa yoo demee gis ko boo abonné saa yu ñu defatee benn vidéo day signalé wu kon loolu mooy li nga xam ne moom yow mi doon wax yow mi nga xam ne doon nga wax itam ci wàllu ni effectivement protocole u kër sëñ bi bokk na ci ñi nga xam ne war nañoo bàyyi xel ci loolu loolu ànd naa yow ndaxte ñoom bu ñu indee jigéen ci dëkk bi itam ñi nga xam ñoo fa nekk war nañ leen a ñoom orienté xam fu ñu leen di jëmale teg leen fa te bu boobaa duñ ko sañ bañ ànd ak président ñàkk ànd ak président ci am ku ñëw ñun la fii kat nii lañ fa war a doxale ndax jumaa ji boo demoon tey ji mu xaddamatul xidma nañ fa bëgg rek nga loolu nag kon itam moo am war am ci kër sëñ bi kon ñooñu itam kon responsabilité partagée lay doon loolu jubóo nañ ci ki doon laaj numéro téléphone bi bëgg a jokkoo ak soxna si doon laaj bëgg a ñun ngir ñu tegtal ko daara ji muy war a yóbbu doomam daara yi tarbiye keneen koo xam ne rek lu jëm ci loolu la lu yitteel bu leen fàtte ni am na mouvement bu ñu wax mouvement national al xidma euh, bi ñu boolee murit action ak fii xidmatil xadim Cheikh Mouhamadou Mountakha jox nu ndigal ñu sos euh, euh, xaraka boobu muy kuréel googu di al xidma ñu bari bokk ci ci réew mi ci Touba ak Dakar ak fu ne am na jëwriñ joo xam ni moom sawar na lool ndax ancien gendarme la moom numéro bii ma leen di jox képp koo xam ne rek bëgg na ñu jot ci li ngay wax Euh, ñu jot ci ñun boo ci wootee rek moom dina jokkoo ak yow euh, jox la euh, ay information wala boo ko bëggee li nga ko laaj dinañ ko eggee muy numéro bi 76 632 632 24 39 76 632 24 39 moom liggéeykatu Sëñ Tuubaa la ci kuréel gii di alxidma la nekk di ci jëwriñ boo ko wooyee rek incha allah rabbi dina li ngay wut dina jàppandi. kon ñu ngi leen di sant lu baax di leen gërëm di balax ñëpp euh, di balax ñëpp di wax nag ni incha allah rabbi sàq bi ki doon laaj euh, yan bis lay doon ginnaaw abonné ngoo ci te yaa ngi koy topp euh, mënuñu koo jàppalagoon bis ndax waajtaay yëpp li ñu nekk du lii rek dafa bari lii 10 rek wala 15 pour cent ci liggéey bi ñu nekk 15 pour cent rek la ci muy Saxum Touba l'officiel moo tax nag ñu la xamal ni la kon mun na nekk. ay bés gu nekk lañ ko daan def ajjuma daal jàppale ne ajjuma ju nekk daal lañ koy génnee moom ci YouTube bi incha allah bi mën na am nag diggante ajjuma ak ajjuma am lu xew lu jàmp lu munta ñàkk nu wax ñu wax ci loolu nag buñ ci eggee yow mi abonné bu boobaa boo ko gisee rek di ko daal gis waaye daal ajjuma daal saa su lañ koy génne muy Saxum Touba l'officiel euh, émission bi incha allah rabbi muy ci euh, YouTube bi lay am itam kon ñoo ngi leen sant leen gërëm di jox daje incha allah beneen bii di ñëw rek mën naa am muy ajjuma bii di ñëw wala ajjuma ba ca toppaat Euh, mën naa amit mu ci diggante bi lu jar wax nekk fi ñu waxtaan ci yéen dugal ko ci incha allah jëf alhamdulillahi alkarim silmilan alastighali bi furudin wa sakartuhu li qad sahani li watani bihi nafa ma